L'eau multimédia moi de di émission Assalafou Ma'al Qur'an nous sommes l'eau multimédia 27 avenue Émile Bajan, angle Paul Oldakar. Dakar l'eau multimédia spécialiste de l'informatique, informatique bureautique divers matériels, réseau et accessoires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 mbokki ñu delu wat ci sunu jotaay as-salafu ma quran nu koy amé ci kër gi di la maison du Coran nga xamné ahlul quran gep ñom ñoo ci yem yàlla nu yàlla boole yàlla may ñu ñuy liggéel al karim tilawatan wa qiraatan wa amala yàlla may ñu ñuy béglante ci alquran al karim ba yowm al qiyam mu ñu udxulul jannata la xawfun alaykum wala antum tahzanuun waaye di jaajëfal jëmm yëpp di ca jiital sunu mbokku Abdul Aziz nga la yàlla teg ca mu sunu mbokkum daara baraka arrahmanu fikum jamia ñu wéy rek fa ñu tolloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mu nga xam la nga xam ne ca la doon yar saxaaba ya muy lan ci alquran al karim bëgga alquran jëfe alquran waaye xamal leen ci alquran al karim ci biir xamle googee dafa am benn xadis goo xamante ne ali ibne abi talibin moom moo ko nettali comme ni nga xamante noonu la ko imam at-tirmidhi andee ali ibne abi talib dafa wax ne man dee dégg naa yontu yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam muy wax ne ala innaha satakunu fitna ala innaha satakunu fitna fa qultu ma almakhraju minha ya rasul allah qala kitabu llah fihi naba'u ma qablakum wa hukmu ma baynakum wa khabaru ma ba'dakum wa huwa alfaslu laysa bilhazl man tarakahu min jabbarin qasamahu llah ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيق به الأهواء ولا تلتبس بها الألسنة ولا يشبع منه العلماء وهو الذي ولا تنقد ولا تنقضي عجائبه من ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد من قال به صدق ومن عمل به أجير ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم الله أكبر علي بن أبي طالب نيني ينتبي صلى الله عليه وسلم نيني ألا إنها ستكون فتنة ينتبي على محمد عليه الصلاة والسلام نيني جمن jamono فتنة دين fitna ألا إنها ستكون فتنة nee ne fitna dina bari lool fitna ci wàllu aqida wàllu pas-pas dañuy dem mbir yi daal di jaxasoo ku ci nekk di woote woo di ngeen gis lu nekk ay nit di woote wilaya ay nit di woote woo yonent ay nit ku nekk ku jóg daal di fàq sab yoon ne lii moo moo gën ku jóg di woote woo ab sëriñ ku jóg di woote woo ab ustaaz naxe yi daal di bari fitna ci wàllu histoire daal di bari ci wàllu dëkk yi ci wàllu ni ak ci wàllu lépp jamono daal di jaxasoo dee gi daal di bari kenn du xam fan ngay teg sa tànk ali ibn abi talib daal di jaxle mu ne fa qultu ma almaxraju minha ya rasul allah ali ali ibn abi talib nee ne man yonti yàlla muhammad alayhi salatu wassalam bu boobaa lan mooy solution bi lan nga nuy dénk ne ñu daal di koy def saa yu ñu demee ba fitna daal di bari jamono daal di lëndëm jamono daal di jaxasoo mal maxraju minha ya rasul allah ali ibne abi talib nene man yonti allah mouhammad mal mahraju minha lan moye solution bu keroge yonti allah mouhammad ne ko kitabullah téere yàlla moy alquran al karim saa yu ngeen demee ba jamono jaxasoo teeleen ci alquran kitabullah alquran rek moom mooy solution keroog te mbokk yi gënuma leen xam ne jamono ji la yonti yàlla mouhammad doon wax ali ibne abi talib jamono ji ni mu jaxasowee ëpp na rawatina sunu réew mii di Sénégal kon yonti yàlla Muhammad waxoon na saxaaba yi ne mu wax Ali ibn Abi Talib ne dénk leen ndaw yi ne bu boobaa kitaabullah nañu jàpp ci alquran kon dee man sama jaan wàcc na ku ko xamul woon ku ko jotul woon jottali naa la ko ci kër gi ñun de muy la maison du Coran suñu jaan wàcc na nee nañ leen kitaabullah jàpp leen ci alquran ndax mag ñi ñoom ñëpp ci alquran la ñu yar njaboot gi jukkil nañ leen fi ay yooni yoon limaam Serigne Touba wax ci alquran limaam Seydi El Hadji Malick Sy wax ci alquran limaam Baye Baye Niass wax ci alquran limaam Abbas Sall wax ci alquran ñoom ñëpp nee nañ jàppaleen ci alquran al karim ndaxte alquran fiihi naba'u ma qablakum lépp loo xam ne nit ki bëgg na koo xam te mu nekk lu weesu ci nit ñu njëkk ña ña tooñoon yàlla fi yàlla aw ak ñoom ña déggaloon yàlla na leen yàlla teralee fiihi naba'u ma qablakum li nga xam ne mooy solok la ñu jitu loo ci bëgg a xam demal ci alquran wa xabaru ma baadakum lépp loo xam ne dina ñëw prévision yi parce que tey jii dem nañ ba tubaab bi la ñu gëm tubaab bi nee na 2030 lii mooy am 2050 ah lii moom mooy am ñun ñu gëm loolu est-ce que tey jii jamono jii ñu toll dara waruñoo bett tey jii ku ñëw ci ñun dinañ la wax lépp loo xam ne alquran nee na loolu mooy am ba qiyaamu saa ba adduna tukki yonti yàlla Muhammad xoolal mandarga yi mujjug jamono waxoon na ne lii su ngeen ko gisee xam leen ne jamono mujjug jamono jot na saa yu ngeen demee ba gis lii xam leen ne yowmal qiyaam taxaw na lépp wa خبر ما بعدكم لبلوي أم في يوم القيامة القرآن وحنا وايو حكم ما بينكم لبلو خمنا ممكن وراء أتوا سين بير ممتع القرآن وهو الفصل ليس بالهزل القرآن موي دق جو خمنا أمول تاخان وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله كفي باي القرآن دادي ري ريلو ولا ديواتي ولنن يلا دادي لي دوما دادي لي ترخل تكان من جبار قصمه الله xool leen ñi fi mos a woote woo lu dul alquran nga xam ne woote yoo xam ne ci ay kàcc ak ay nar rek la tege woote wo sol mbubum rëy di naan man la du yàlla yàlla du la may at de balaa ñaari fan mu woon ñëpp ne doo dara in hum illa kal an'ami bal hum adallu sabila wa huwa alfaslu laysa bilhazl man tarakahu min jabbarin qasamahu llah wa man ibtaga alhuda fi gayrihi adallahu llah xool leen foofu yonent bi nee ne képp kuy fàggu aw njub di bëgg ab njub ci leneen lu dul alquran adallahu llah wa man ibtaga alhuda fi gayrihi adallahu llah alquranul karim mooy téere bi nga xam ne laa bihi al ahwa gis nga bànneexu bakkan ku mu neex jéemal lu la neex waaye mënoo muusa ki ba soppi alquranul karim gi alquran moom mooy li nga xamante ne laa tanqadi ajaibuhu li nga xamante ne mooy kaawtee fi alquranul al karim yi du jeex mukk parce que moom la waaja waxoon ayatuhu kullama taala al muda judadu yuzayinuhunna jalalul itqi wal qidami ahmad shawqi moom moo ko waxoon saa yu jamono ñëwee rek nga gën a gis ne la alquran waxoon dëgg la alquran gën a nekk li nga xam ne moom miracle te alquran laa yashbau minhu al ulama alquran borom xam-xam yi duñ ca suur mukk comme ni ma leen ko waxee woon bustaanul aarifin ndap la goo xam ne dañ cay lekk du jeex te ñun duñu suur القرآن الكريم لا يخلق على كثرة الرد قسنا نون الإسلام لو اجتمعوا إنسهم وجنهم صغيرهم وكبيرهم عالمهم جاهلهم ذكرهم إنسهم غور جيجين نيوم نيب نيو داجي بور جيما ياق لين القران ولا جيما تونتو لين القران يالا نينا نيوم دون ما استطاعوا وما قدروا يوم دون وهو الذي لم تنتهي الجن اذا سمعته حتى قالوا انا سمعنا قرانا عجبا خولال نيو نجيما توب نو nee ne ba ba jinne yi déggee alquran al karim ci saasi rek dañoo dellu ne inna sami'na qur'anan ajaba dégg nañ alquran gu yéeme alquran gu yéeme maanaam lu ñuy jàng lu yéeme mooy téere bi lu tax parce que wa israfna ba nga xamante ne noonu la ko yàlla buur bi subhanahu nettale ca surat al ahqaf jinne dañoo dégg alquran rek daal di nekk ay ustaas ci saasi qaalu ya qawmana ñu daal di dellu rek daal di commencé waaraate maanaam alquran rek moom mooy jël fekk nit fekk ab jinne daal koy def ab oustaz ci benn fan dañoo dégg rek daal di ñibbi seen i kër nekk ay oustaz di waaraate ci saasi alquran moom moo ko def huwa alladi lam tantahi aljinnu is samiathu hatta qaalu inna sami'na qur'anan ajaba yéeme gay mooy lan yahdi ila rushd dalay ginde jëmele ci lu baax coow yi bari na lu nekk lu neex waaye mu ngi wax di ko askanale diine déglu leen lii la yonent yàlla Muhammad wax man qaala bihi sadaq ku wax ci alquran rek wax na dëgg yonent yàlla Muhammad nee ne ku leen di wax alquran wax na dëgg topp leen ko ومن عمل به أجر كجف القرآن يلا فيكو يو ومن حكم به عدل كأتوا القرآن ما ننا أنا جيجي أنا بروكيري أنا نجيتو جيتوريو أنا ميسري أنا أتكتي نقال أتوا لين القرآن ينتهي المحبة ديني كأتوا القرآن ما ننا ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ku woote jëm ci alquran yàlla gindi la ci yoon wi nga xam ne mooy yoon wu jub gi mu yoonu siraatal mustaqim yoon wi nga xam ne mooy yoon ti yàlla muhammad mooy yoonu yonent yu jiitu ya mooy yoonu yàlla buur bi subhanahu wa taala ما كان من صواب فمن الرحمن وما كان من خطأ فمن نقصان صلى الإله على النبي وآله ما لبى ملب أو تهلل محرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nous sommes l'eau multimédia. 27 avenue Émile Badian, Angle Paul Hall Dakar.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 téléphone 33 823 81 87 ou le 77 998 0404. L'eau multimédia, l'innovation. Notre passion